نقي تقي صالح ومصلح بشير لمن لله بالحق يسجن asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi amaat tey jàkkaarloo yéen ak jataay bii nga xam ne bu ngeen jàkkaarloo ak jataay bi ak barab bi ñu nekk xel yëpp danañ demaat ci jàmbaari lislaam ja déggaat bayit wi nga xam ne moom lañ ubbee mu di sëriñ Tuubaa Cheikh Saalihu Mbakke yàlla nañ ko yàlla fayal waa ahlu tarbiya di ñi nga xam ne sun borom taw feexa na leen ba nu ganee àdduna ba àddunay bëgg a am ci ñoom ab cër seeni way jur jox nañ leen yàlla te mu jaar ci loxo yi nit ku nituk yàlla ko àgg ci yàlla mu toqi leen yar leen tarbiye leen ba def ci ñoom la nga xam ne moom la Serigne Touba daan def ci mag ñi bañ am ngërëmul yàlla nag ñoo ñooy ñoo del siwaat nag fas yéenee waxtaan ak seen i bokk waaye fas seene waxtaan ak adduna bi muy ndigal lu bàyyi bàyyikoo ci sëriñ Seex moom Serigne Saalihu yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm siwaat ci ñoom muy liggéey bii nga xam ne jàpp nañ ne naka jekk dañoo jàppoon ne dañ leen di dimbale si waaye duñ am jot bay mën a dimbale ji keneen ba sun borom may leen ngërëmul yàlla nag bañ delluwaat ca kër ya tey jii liggéey boobee nag sëriñ bi teg ko ci seen loxo nag na leen yéen war a fekkaat dongo ya fañ nekk lañ leen daan defal ngeen fay bor ba te di ko defal dongo yooyee loolu moo di lan moo di liggéey bi nga xam ne su jamono masa agsi fii danañ delluwaat ca daaree xel kom ya bàcc gerte ga jëri ko roñ ngooñ ma ba mu àgg ñu daal di baddaliwaat tool ya ba mu àgg ñu ñëw ci sëriñ bi taalal ko seen i loxo mu ñaanal leen liggéey boobu nag moo agsiwaat moo tax toog fii ci mbaarum Serigne Saliou mii nga xam ne ku ne xam na ne ban fi ànd ak Serigne Saliou booba jamono melagut nii ba jamono soppeeku ba mel nii ñu toogaat fi tey nag di sant yàlla bu baax fas yéene jël kàddu yi woo seen mbokki tarbiya yëpp nag waaye na nañu xam ne tarbiya daara ja jaare ci Serigne Saliou ak ja tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ak ja woon ca Mbacke Kajoor genn tarbiya rek la kon képp koo xam ne sa maam jaare woon na Mbacke Kajoor wala mu jaare Mbacke Bawal wala mu jaare Daaru Salaam wala mu jaare Touba wala mu dem Mbacke Bari wala bi sëriñ bi jógee ci géej gi mu fekk ko gànnaar ba ci yéen jolof wala njaareem kum ci man doon rek dongay tër bi ñi ngi lay woo xamal ne bis boobu ñoo yéen ñoo ko bokk mu war a doon nag kañ le 6 décembre ca tooli koom moo tax danañ yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Abdou Lahad Guèye mi nga xam ne moo koy ubbi su noppee danañ jox sëriñ Samba Diaw su noppee ñu jox sëriñ Jili Seck su noppee ñu jox sëriñ Mamour Mamour Kane su noppee ñu jox sëriñ Assane Fall su noppee ñu jox sëriñ son bu ridwaan su noppee nag sëriñ alahabi bu sa malaayka moom sëriñ saaliw mii tëj jataay bi waaye ñuy xamal bokk yëpp nag ne mbooleem ab baay faal seexu baay faal bu mas a jaar ci daara ji nañu xam ne ñoom fu nu jëm mooy lagan la lan jëm ngir bàcc gerte ga jëri ko roñ ngooñ ma kon ñoom seenu walla ngook seenu sasa ngoog fu ab taalibe baay faal ma a ne man ngaa xam ne kon lagan la ngeen di kon ñu bàyyee kàddu gi ak sëriñ Abdou Lahad Gueye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ndongo yi mbokki soppe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di jottali ndigalul sëriñ Souhaïbou Ridwane Ndoye mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ñun ñi féete diwaanu Touba te war a dal Xelkom Daaru Salaam ak Lagan mbokk yi ñu fas yéene soññ jëwriñ yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi tënk ko ah, ñi nga xam ne it ay njiiti section lan topp ci ñoom ñoom ñëpp kenn ku ci nekk nga xam ne loolu moo ci sa wàll képp koo xam ne dégg nga sa tur nga soñ sa waa mbooloo te xam ne liggéey bi ñoo ko bokk janatul maxwa sëriñ Mor Mbacke xelkom mooy jëwriñ ja daru tansil sëriñ Jili sekk mooy jëwriñ ja Touba Belal sëriñ Mortala Diop ñu ngi koy soññ mooy jëwriñ ja daarul muxti sëriñ Xaadim Seen ñu ngi koy soññ mooy jëwriñ ja daaru Rahman ñu ngi koy soññ mooy jëwriñ ja ah Ndindi sëriñ Muntaxa Ñongu ñu ngi koy soññ mooy jëwriñ ja Xosnul Mahab sëriñ Daam ja ñu ngi koy soññ mooy jëriñ ja ah daaral xuddo sëriñ bara sàll ñu ngi koy soññ moom mbooloom ñooy mooy jëriñ ja daaru salaam sëriñ seex toob ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëriñ ja ah daarul minan bàyyi sàmba jaw ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëriñ ja umul sëriñ muudu kamara ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëwriñ ja daaru alimul xabir sëriñ seex muudu géy ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëwriñ ja tayba sëriñ seexu naa buso ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëwriñ ja ah Mbaye Diop Touba Njaareem ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëriñ ja Ndoka Serigne Cheikh Fall Touba ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëriñ ja ndal Serigne Jili Thiam ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëriñ ja Daaru Salaam ñibingal Serigne Cheikhouna Ndiaye ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëriñ ja sëriñ Ousmane euh, Diouf euh, section Mbal ñi ngi koy soññ di soññ sëriñ Mouhamadou Ndiaye Aliya di soññ euh, sëriñ Abdoul Ahad Dieng Daarul Khuddoos section Daarul Khuddoos Baye Sidi Souare quartier Mawahibou Pakki Ndonge soññ daare Janatul Mahwa Touba Abdou Abdou Fall di soññ Janatul Mahwa sëriñ Aliou Ndiaye di soññ Touba Sora sëriñ Khadim Fall section mbokk yi ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo tënk liggéey bi te doon ay jëwrin ñi ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba yàlla nañ ca dajeek tawfiix Serigne Touba jooju mu ñaanoon waq di nag ijaal lasina daamoo fii xidmati wa ablahu maaraamoo ginnaaw loolu ñu ngi leen di sant di leen gërëm ah, si njiital Serigne soy bu Rilwaan fii si Touba ah ñi ngi tàllal loxo bépp taalibe bépp transporteur may wax si wàllu oto yi ñu xam ni nañ daan demee at yi ñu weesu ba juróom juróom at ba ak fii tey ñu dellu di koy yeesal di tàllal ñëpp loxo ñu ngi leen di sant ci lu weesu ah ah di leen santaat ci lii ñu dëgmal di ñaan ñu tàmbalee ko si bisimilahi rahmaani rahim àggalee ko si alhamdulilahi rabil alamin ginnaaw bi ñu leen santee gërëm leen si jàppale yi weesu ah ñu leen di tàllal loxo si lii ñu dëgmal ajjuma bii ba agsee le 6 ñu fas yéene am départ boo xam ne fii si kër sëñ euh, Serigne Touba Cheikh Saliou si wetu jumaa ji 8 comme fi fekk te bëgg a dem xel koom dinañ fi taxawal oto yoo xam ni dina jële nit ñi fii yóbbu leen sa yi daaru salaam ah ñu fas yéene euh, joyal ndigalul sëriñ bi te fas yéene euh, taseeg tawféexi sëriñ bi ah di sant bépp transporteur boo xam ni yaa ngi si Touba ak ñi daan àndal démb ak barki démb ñi ngi leen di tàllal loxo ah di leen woo ci liggéeyu xel koom bii te xam ni ah ginnaaw bi ñu ci wooyee dongay tërbi yëpp képp koo xam ni am na demukaay départ yi bari na ndax boo xoolee fii si euh, euh, buntu kër Serigne Cheikh Saliou Mbacké si jumaay Touba fu mel ni mooy bu naa fi maanaam am na départ daara yi ñu fi lim yëpp fenn fu ci ne si gox yi si dëkk bi am na ay départ yoo xamante ni képp koo xam ni bëgg naa dem bu àjjuma jotee le 6 8 heures na fekk nga jekk taxaw fas yéene ñu dem xel koom ndax li waral loolu am na nu ñu daan dem koom waaye dafa bokk tëg nii moo tax ñu waxee nii waaye nag képp koo xam ne am na oto muy jumtukaay te am pas-pasu fas yéene liggéeyal Serigne Touba ñu ngi lay tàllal loxo di la woo fas ne ñu ànd ak yow loolu ba tase cee ngërëmi Serigne Touba euh, ji nga xam ni moom lañu fay sàkku te fas yéene ñaan suñu borom mu defal ñu ci tawfeex tawfii saadatu daarini kon ñu joxe ne numéro yoo xam ni képp koo xam ne am na it te fas yéene dem xel koom na nga woote 77 464 99 27 464. 4 90 19 27. wala nga woote 76 335 74 35 335 74 35 numéro yooyu ku ci woote dinañ la jox tegtal noo mën a amee oto noo mën a demee xel ko. ginnaaw ba ñu nuyoo ziar leen di ñaanal Serigne Touba. sëriñ Saalihu Mbàkke sunu jàmbaar ji sunu borom dolli ñu ko fayal yokki leeram ak i maqaamaam yokk ay darajaam taas ñu ci barkeem ñaan ci yàlla mu yàggal fi jëwriñam sëriñ si Ahmadu Mbàkke te dolli ko wér mbooleem ay rakam magam ci soxna waalo ba ñu mottali yéen sëriñ Tuubaa Sayxu Saalix Mbakke Xaadimu Rasuul te ànd ko mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina mbooleem dongay tërbiya yi sëriñ Saalixu Mbakke yëpp xarit yeeg wëllëre yi soppe yeeg am jàmm yi ginnaaw loolu liggéey bi nga xamante ne nii sëriñ si Ahmadou Mbakke yëkkati na ko jox ko dongay tërbiya yi sëriñ Saalixu Mbakke yi àndoon ak moom ñooy woote waat liggéey boobu nga xamante ne sëriñ Cheikh feddali na ko ren ji 2019 ñi ngi ciy woo nag sëriñ Sohaybou Sarr jëwrin ju mag a mag ci kër sëñ Saliou Mbacké ci wàllan saar kon ñu ngi koy woo ci liggéey boobu sëriñ Lamine Kane moom itam di jëwriñ ju rëy rëy ci kër sëriñ Saliou Mbacké ak mbooloom ñu ngi koy woo bu baax di woo sëriñ Xaadim Ndiané eh, ibnu sëriñ Dame Ndiané di woo sëriñ Pape Gueye transporteur ca diwaanu Thiès naka noonu ñu ngi woo Baye Mañaaw Jonn Touba Refon di woo sëriñ Ousmane Sàmm ci Touba Xaahira moom itamit di ko soññ bu baax a baax di woo sëriñ Seex Mbacké loo di njiitul regroupement transporteur yi nga xam ne ni ñoo yore benn yi waaye naka noonu la ñuy wooyee sëriñ Pape Mbaye mi nga xamante ni mooy njiitu regroupement safooru benn yi di woo tamit sëriñ Xaadim Seck Baye Fall di jëwrin ci kër sëriñ Dame Seck ak ñi muy àndal ñëpp ci ay taalibe ci waa kër sëriñ Dame Seck ci ndigal sëriñ Cheikh Fall Seck naka noonu ñu ngi woo sëriñ Ibrahima Ndiaye di transporteur moom itam di safooru benn ñu ngi koy woo bu baax a baax di woo sëriñ Mouhamadou Ndiaye Euh, ali aliya moom mm, mooy soññu sëriñ Mouhamadou Ndiaye aliya mooy soññu waa daayira minhajul huda ilaa mujibu nada ak waa daara ak waa daare daara euh, yi Touba Xelkom ya nekk saam yëpp sëriñ euh, Mouhamadou Ndiaye mi ngi leen di woo waa clinique Taysirul Asir docteur Pape Moussa ñi ngi koy woo ci liggéey bi taxawaay bu am solo boo xamante ne nii daana ko taxawee ñi ngi koy woo ci liggéey boobu di woo bu baax tamit Baye Saliou sàll di sëfooru benn moom itam ñi ngi koy woo ci liggéey bi di woo docteur Strong mi nga xamante ne nii moo jiite eh, eh, ndaamaatu ci eh, ci ci ba naka noonu ñi ngi woo docteur Seck docteur sek mi nga xam ne nii moo nekkoon xelkoom nekkoon fa taxawaay bu rëy rëy ci dongo yi di leen taxawu ñu ngi koy woo ci liggéey boobu di woo Baye Baye Nooru waa ahlu Nooru daar yi nii yëpp rek ñu ngi leen di woo ci turu bay Nooru ñu ngi woo tamit bu baax a baax waa daayira diwaanu saalihin yi nga xam ne ni ñooy turandoo Serigne Saliou Mbacké yi te kenn ku ne xam seen taxawaay kon ñu ngi leen woo ci liggéey boobu boolem fa turandoo Serigne Saliou Mbacké nekk waaye ñu ngi woo Serigne Abdoulaye Ndiaye moom Serigne Cheikh Saliou Mbacké cenn diwaanu Ndakaaru kenn ku ne xam na taxawaayam ci liggéey bi ak dëgg taxaw gi mu ciy def ñu ngi koy woo bu baax a baax di ko beral woote moom Serigne Abdoulaye Ndiaye di taalibu Serigne Cheikh eh, Ahmadou Mbacké ñi ngi woo waa daayira Nourou Mounir ñu ngi leen woo bu baax ci liggéey boobu di woo waa donay maam soxna Fat Jaxate ñu ngi leen woo ci liggéey bi kon liggéey bi aljuma la tombeek 6 décembre incha allahu rabbi tii ci kër Serigne Saliou Mbacké la ñuy déparé ak fu ab nekk rek wala jëwrin ñu ngi leen woo ci liggéey boobu di jël nuyu bi di ko sof ci mboolem nuyu nga xam ne jaar na fi te matali sëkk di wax rek li nga xam ne moom la ñu dëgmal muy liggéey bi nga xam ne yàgg na di am di ko woote xam naa lu ñuy fàttali la waaye nit ñi fàttewuñ ko woon nag euh, dëppoog la 6 bi ñu dëgmal aju mooy suba ji bu dolli seeg jàmm incha allah fële ca Lagan euh, Lagan na xam naa ne day geneen wàll ci liggéey bi ndax daa feetiwul xel koom yu bari dañ ko dul xam ñi nga xam ne dañ faa war di dem am na ay départ yoo xam ne waajaloon nañ ko ngir ku jóg war caa dem euh, foofee ca Ndulo ak fii ci Daaru Xafoor waaye ak ci Mbàkke Bawal xam naa nag ku soxla ci numéro yooyu boo xam ne ca nga bëgg a jokk booy ñëw. su dee ndural la da ngay def 0 62 75 79 su dee fii ci Daaru Xafo da ngay def 77 568 99 76 su nekkee ne fii ci Mbàkke la nga def 77 756 vingt 26 ñett jaaruwaay yooyu foo ci jaaree rek incha allah mën naa jàppandal ñëw ga ñoo ngi nuyuwaat ñëpp te di ziare xam maa nag liggéey ba moo defe naa siiw na. am mbàcc la ak roñ gerte ak roñ ngooñ. di amaan mbégte ci jàkkaarloog mbokki jullit yeeg taalibe yi di yëkkati ndigal lu bàyyikoo ci sëriñ Cheikh Mbacke moom Cheikh Salih yàlla na ko fi yàlla yàggal tamit ko ak wér. waaye nag jaar ci ki nga xam ne mooy sunu jëwriñ ñun dongay tërbee yëpp muy sëriñ Saliou Sall mi nga xam ne mooy njiitul euh, donga yi ci moom lañ amele jotaay bi ak ndigalam. jëm ci mbooleem jullit yi waaye nag mu teg ko ci loxol dongay tërbee yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Saliou ci liggéey bu mag bi mu doon liggéeyal sunu borom ñu laafaale itam képp koo xam ne soppeeb sëriñ saaliw nga ak foo mën a nekk ci àdduna te loolu bu buñ ko waxee jullit ñëpp daj nañ ndax jullit ñi boo ci murid yi boo ci génnee soppee sëriñ Saliou yi kenn du des ñoom nag nañu xam ne liggéey boobu ñoom la ko sëriñ bi teg seen loxo kon ñi ngi koy fàttali ñëpp le 6 décembre la ni ñu ko waxee mooy départ bi diggante Lagan ak xel Xelkom ñi ma jiitu nag tudd nañ ni ñuy demee ak fa ñuy fa ñuy bàyyi ko ñëpp dañuy soññ nag suñu mbokk dongay rek di wax ne fépp fu mën a nekk. nanga xam ne liggéey bi sëb liggéey la koo ci gis mu ci yëngatu yow la ciy dimbali waaye liggéey bi doo ngay la ko sëñ bi teg seen loxo kon nag jumtuwaay yi nga xam ne mooy tax liggéey bi egg mel na ñu war a mel bu ñu ko fàttee ci waaju muy ay saaku ay jeerukaay fourchette radu ak lépp loo xam ne mën naa yéwénal liggéeyu mbàdd li doo ngay nañ xam ne loolu mooy la nga xam ne bu ñu eggee mooy tax liggéey bi jëm kanam mboolem ñi nga xam ne nag daan nañu gunge ci liggéey bi tey soppee Serigne Saliou fu ci waay mën a nekk ñu ngi lay tàllal loxo di la xaar ci liggéey bi di la xamit ne liggéey bi ay cër la rek yoo xam ne dafa faa tege lépp lu ci waay jëf rek sa cër dana la topp ndax Cheikh Saliou daan na wax ne jëf lu rek ay sama wàll waaye nag yàlla dimbali na ma ba jëf ju nekk xam naa ak payam kon lu waay bëgg rek na nga xam ne pay ga moom jëf jaa ko fay jëlee kon yàlla ni yàlla yombal lépp ñi ngi woo soppe yëpp nag xam naa di ci tudd waa Daara Nuuru Munirun ak waa données yi maam Faat Jaxate ak mbooleem soppe yi nga xam ne nii saa bu dongoy jugee dinañ jug ànd ak ñoom ñoom tam ñu ngi leen di woo ci liggéey di wax ne daal ndigal bu ma saan a jug murit day bàyyi lépp lu mu nekkoon doxalee ab sëriñam ab liggéeyam ndax ca loolee rek la aajoom di faju waykat ba dafa wax ne murit dafay roy saxaaba yi ngeen ji yonen te fonk ndigal gëm sëriñam na dof ya aboo bakrin uwaysun ibra faalun murit yaa ngoogu roy leen mbër yu mag ya asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sant yàlla yonent bi nee na ginnaaw bi mu sant yàlla ak yonent bi sant sant sëriñ Touba lépp a jaar ci ci ci baaxu Serigne Saliou Mbacké. te nee na lépp jaar ci baaxu Serigne Saliou Mbacké. li may njëkk wax moo di. nee li may njëkk wax moo di. daa bëgg ngeen seeral daa bëgg ngeen seeral ko. sant naa Serigne Saliou Mbacké. nee na daa bëgg ngeen seeral ko ne sant na Serigne Saliou bu wér. bi nga xamee ne boole naa ak Serigne Cheikh yëpp. ak ak mbokkam bi yii. nee na boole ko donge tër bi ndax kat eh, bu baax dimbali nee na bu dimbal taxee ba ma dimbali moo tax. nee na bëgg ko dimbali moo tax. mu boole ma dong yi mu boole koog dong yi tarbiya yii. ndax ndax fi jaar jaru fi. ndax nee na fi ngeen jaar jaru fi. waaye nag bu bu yëgalee seen seen seen seen seen barke ak seen doole mën naa yóbbaale ku ne. nee na seen barke ak seen doole mën naa yóbbaale ku ne. kon noo ngi leen ñaanal yéen itam. nee mi ngi leen sant di leen ñaanal. yéen dong tarbiya yi. seen yéen dong tarbiya yi. yàlla miy dimbale. ak mbooloo mi mi àndal. muy waa Kër Soxna Fat Jaxate. góor ak jigéen mag ak ndaw. ñu mën a ànd ak yéen. ci liggéey bi. ngeen nangul ñu ko. nee na ñu boole seen lépp. boole ànd. dem ci tool ya. lépp lépp seen baax ngeen ko maye. lépp seen baax ngeen ko maye. ak cant war na nee na loolu ak cant war na ca. nee na mi ngi woo ñëpp. bokk ci waa kër soxna Fatou Jaxate képp ko xam bokk nga ci waa kër soxna Fatou Jaxate góor jigéen ñëpp na ñëpp fas yéene ànd dem ca liggéey ba nañ ko daan defee di woo di jàmm yëpp di ànd di woo bokk yëpp ñi xam ne am na am leen lebal nee ñi xam am na lu leen lebal bis bi la bëgg ñu fay. bis bi la bëgg ñu fay ko ci. képp a képp koo xam ne da bëgg a lebal. nee daa bëgg nga ñëw ci bis nga nga ko ci. nee na ndax mooy Serigne Cheikh Mbacke. joxe joxe na ndigal. ci gaa yu liggéey bi jibsee. boole mu ñu boole ko ci. war war nañoo xam loolu. góorgóorlu te góorgóorlu. nekk ci seen gannaaw rek. nekk ci lu ngeen wax moom lañ wax. lu ngeen def lu lañuy def lu moom la ñuy defloo def lenn lu ngeen waxul noo ngi woo ñëpp nee xam ne kaay jariñu rek la ndax nañ sëñ Saliou daan na wax ne nee na dem xel koom jaaxalu ko ku fa demu daal moom la xamul nee na itam boo xamoon ne door murid yëpp xel koom nee na boo xamoon ne murid yëpp dem mu bàyyi ko woote mu bàyyi woote xel koom nee na bëgg na kon ñëpp jëriñu nee na kaay leen bu kenn tardé nee na bu kenn tardé bu yeex na ñëpp fas yéene dem ànd ak yar ak teggin ni ko sëriñ bi bëggee ñu defee ko noonu taali bi rek bokk jàmm takkandoo woo ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu yàlla nga fi yàgg loolu tip ñoo ngi sant yàlla bu baax di santaat sëriñ Saliou di woo mboolem ñi nga xamante ni ñooy sunuy kilifa ci tàmbalee ci kër sëñ Mor Kumba Kan ak kër sëñ Cheikh Modou Kan Siin di xalifa ba di Maam Balla Kan ak Cheikh Amdi Moustapha Kan ñoo ngi woo mboolem waa kër sëñ Aliou Kan mbaaleen waaye ñoo ngi woo waa Touba ci jannatu Mahwa sëñ Saliou Ndiaye sëñ Cheikh Kan général ñoo ngi koy woo waaye naka noonu lañuy ñuy wooye waa Bonja ci ndigalu sëñ Sadex Kan waaye noonu lañuy ñuy wooye mbooleem ñi nga xamante ni mooy waa Kajoor la ko tàmbalee ci Pekes Tibaar Jokkul Sugeer Njukki ngéey Ngéy Lamsing ñu ngi woo mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk njompi ak njooko Aliou day borom jamono du dongo yi nekkoon ci tool yi rek ñoo ko jagoo waaye ñenn ñi dañoo nekkoon ak moom ci daara ji mu tarbiyee leen waaye ñi ci des ci seeni kaw yi lan la leen fekk tarbiyee leen te ñu sax ñu ëpp. kon kenn ku ci ne na xam ni boote bii euh, képp koo xamante ni am nga yéene mbaa bor boo bëgg a fay ci Sëñ Saliou bis boobee ñoo nga la cay ngir njariñ rek la te njariñul Sëriñ Saliou mooy njariñul Sëriñ Touba te njariñul Sëriñ Touba yamul fenn na ma ko daan waxee rek Sëñ Touba dañu woon diggante ba yonent bi ak di ma ilaa duxulil janna day ñaan yàlla liggéeyal ko ba tàbbi biir àjjana te boo duggee biir àjjana sax mi ngi ñaan yàlla bokk ca ñu koy liggéeyal ci biir àjjana kon liggéey Sëñ waa amul wàcc ñoo ngi soññu ñëpp di woo ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu war a doon nag kañ le 6 décembre ca tooli Xelkom. naqiyun taqiyun saalihun wa muslihun بشير لمن لله بالحق يسخنون